nun ñii di sag njaboot ñëpp jàpp ko itam lenn taxut ñu jàpp ko lu dul jàpp gum jàpp sëñ Tuubaa mooy waxtaanukaayam bu demee ba ci naar yi arab yi ci kàllaama arab da leen di wax benn référence la Afrique di sago mooy sëriñ Tuubaa te nëbbu ci dara loolu tax na ba mu fas yéenee ñëw itam di la masawu xam naa loolu dana ko waxal boppam ci xew-xew bi am bërki démb ci marché Ocass nga xam ne bitim réew la ko fekk mu ne danaa ñëw ba ci sëriñ bi masawu ko ndax euh, lépp lu dal ci yoon murit ci kawam la dal. ñëpp li am solo rek mooy nga yëg ne maa ngi yëngu te li may yëngu sama njëriñu réew dong la loolu foofu la ñuy yem la war a xew nag ëllëg yàlla moo xam su fekkee ki fi nekk la wala keneen moo fi war a nekk yàlla rek moo xam li am solo. am nañu leen loo xamante ne moo nu gënal te du jeex mukk te loolu kenn du ko remplacer mooy cofeel gi ñu am ci Cheikhul Khadim am ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa maa ngi lay jéggalu sax ndax su doom sama sago damay dama lay nuyu rek nga yemale ma ci bunt ba sax waaw waaw doy na ma sëkk ndax cofeel gi nekk sama diggante ak yow euh, leer na leer na ñëpp ci réew mi. kon ñu ngi lay ñaanal baax yàlla suñu borom gën laa kattanal gën laa dimbale ndax xam nañ ne ku nit ñi ak bindee fi ñor nga sa yitte yëpp ci dimbali nit ñi nga ko jëme kon loolu suñ borom waxoon na ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaa waxoon na yit ne loolu rasulullah moo ko waxoon wax na yit ne alxalqu alxalqu iyaalullahi nee na mbindeef yi ñoo njabootu yàlla afdal nee na ki ko gënal nag mooy anfaam li iyaalihi ki gën a jëriñ njaboot gi moo ko gën kon nag bu la yàlla defee xiir la euh, lépp lu am ci lu baax rek nga koy dimbalee nit ñi di ko séddoo ñoom loolu dimbal la kon loolu ñu ngi la ñu ngi koy rafetlu di rafetlu it xalaat yi nga xam ne yaa ngi koy am ci jëm ci mbirum réew mi loolu moom ni nga ko waxee ku ne sañ nga ko def kon ñu ngi sant bu baax di la gërëm di yeesalaat tam nga xam ne xam naa ne am nga ko ci man mm-hmm. te may itam am ko ci yow waaye yow sa jàpp. ñëpp xam nañ ko ndax dangay jàpp te bàyyi kon nag loolu te googu cofeel kenn amut ak payam kon ñaan rek lañ ko fayee ak di ko feddali di la xamal ne itam lépp loo jàpp ci ñun rek jàpp nañ ko ci yow di rafetlu it yi nga xam ne yaa ngi koy jël ba ko yóbbu ci université def ko addee muy xalaat yu rafet kon loolu lépp ay jëfle yu baax kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di feddali waa diggante bu baax a baax rek Euh, sëñ Fallou Xuma ah, waaw moo nekk ci moo nekk ci ah, ah, euh, donga daal yi nga xam ne dañoo réer ak di daw dañoo def benn centre boo xam ne lépp ngi li ci jiitu mooy macha allah mbokkum dëkk bi la ba pare euh, di defar te du yàq te fu ne am na fa bunt tàmbale ko ci sëñ taxa ba ca gën a ndawe am na am na am na sa yow taxawaay moo tax bi ma ko waxee ma ne ko yow loo nekk ñeme nañ ci danañ ci ànd yow yi nañ suñ tax sa taxawaay ci social ak ci dimbale doomu aadama waaw jërëjëf incha allah nit nit la koo xam ne bi jëree réew mi ñun danañ ci kontaan parce que day dimbale nit ñi di dimbale jaam ñi xam fi mi teg tànkam di nitu jàmm te yàlla yàlla na ko yàlla def bu gënee ci moom yàlla na ko yàlla jox barke Seydina am na loo ko yaara ko ñaan gën ci moom bu gënee ci yow yàlla na ko yàlla jox boobaa yàlla na nga ko tal te wér barke Seydina am amet ñaan yàlla réew mi am jàmm ñun loolu lañ ah, jàppale rek ku ñu jàppale rek bu ne damay dem ànd ak ñoom seenu mitit dafa ne woon day def délégation avant lii di am mu ñëw fekk fi gor yi Cheikh Alassane ay goro ngi fii ci marché Ocass dunde seenu ñaq kenn ku ci na yaa ngi xëy di am loo bëgg yóbbu ko sa njaboot ba kenn du la reetaan waaye dëkk bi moom dëkk bi preuve la Touba laa toxoo doo ko dégg mukk toxoo naa feneen rek ñëw Touba ngay dégg keroog bi muy sanc dëkk bi moom sëriñ bi dane dëkk ngi nii boo xam ni mu jug jamono dana gental dëkk yu bari ñun tuxu nañ sunu kër yi bàyyi sëñ Moussa Ka ko waxoon gàddaay def la ngën gi bàyyi Touba di kër Bamba di waay Alsaan mii nag waajam xelam xalaatam lu suqali réew mi waaye am ay ambition ci Touba avant tout li sëñ Modou Kara naan Touba d'abord kon noo ngi leen di massaw lii bokk ñëpp ko lu àddina bépp waaye Cheikh Alassane fekk si nga ay gor fekk si ay taalibe yi Serigne Touba ñii duñu daw duñu daay bu marché bi lépp defoon nii itam te ñaanatuñ ko yàlla na fi yem boo xëyee fekkaat leen fi barke Serigne Touba amuñu dara gisuñu dara dëkk bii bépp waaye yaa yaa bëgg wutu waaw waaw foofu laay waxee foofu laay waxe yaa ko bëgg a wutu waaye dan lay ñaanal ci barkeb Serigne Mbacke Madde mi nga xam ne man moom laa yaakaar di suñu jox bombale lépp loo ci séntu ci lu baax ak lu rafet yal na la ko suñu borom defal yombalal la lépp barkeb Cheikhul Khadim Mbacke ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax xëy na nag waxte wax parfois day am njuumte waaye lañ lañ ko jublu waaw lañ ko jublu ñun xam nañ ko mais boucher yi daal la nii jàppale leen boucher parce que fii ñu nekk nii xalifa général de Mouride am na lu mu wax ci maanaam ci wàllum jóge fii waaye bu sama borom dogalee tamit bala ñu fiy jógee xañ na dale bi yàgg na yàggut waaye népp ni nga ñu mën a jàppalee pour ñu am fu baax fu mën ne ñun boucher yëpp ngeen wutal ñu ko wutal ñu ko suñu jigéen ñi ak amelamane yi te xam ne ay amelamane ay boromi kër lañ te yaakaaruñ te seen te seen njaboot yaakaaruñ leen keneen ku ñoom xoolal suñu yaay ak suñu bàjjani ginnaaw suñu borom lu lun bëgg rek mu leen indi ci marché bi waaye waaye du leneen dimbale leen ñëpp te jëmmi Serigne Touba rek tax te xam ne da leen yokku baa na jërëjëf laaji baara tegoon xam nañ la fa la Cheikh Moustapha Fallilu tegoon xamin nañ it fi la Serigne Fallou tegoon mhm. moo tax ñoom moom mii mu ñëw bi mu ñëwee masawu na marché bi dem ci ñoom war a dajeeg délégué yi fii ci kaw waaye dane day ñëw ba fi yow nga ñaanal ko ci tànk yi muy dox bëggit ci weer wi nga xam ne mooy weeru Serigne Fallou sa wuy juróo rek a ne woon yonent bi dana lay yi mën a cëpp mhm. moom rek a ko waxoon muy sa doom bis ni ka tey bëgg laa def yaay yaayam fii ci dëkk bi nga ñaanal ko lii nu jëm muy joŋante élection dafa soxla réew mi moom soxla na ko te it yéene Touba bëgg léppam lu muy def jiital ci lislaam bi te buñ ne lislaam bi Touba kenn du des sa way juróom nag sëñ Fallou moo daan taal kënu yi nag Mbàkke moo tax nu ñëw mu lay ndokkeel ci weer wii di la ndokkeel ci màggal gii nu jëm di la xamal ne daal sa doom la ñëw ngi bëgg nga ñaanal ko Cheikh Alassane nu dégg sa kàddu amiin waaw waaw fi ngeen nekk waaw maa ko moom maa ko liggéeyaloon taal bi suñ Fall ñu ko dis bu ñu ñëwee yegg gënna ma damaa bëgg luye ni ko ma ne ko dërëb dañ ko ci luye mm-hmm. maa ci def sama ñaari million ti ci daal sama gani màggal bi kon de ko fi ñëkk sëñ Tuubaa nga war a defal bi ci kaw ci la ñëpp ci beneen nga dugg jubee jàkkaarloo suñu Fall soto woon ah, ba jàkkaarloo suñu Fall ñaan gën a nangu ah man xam naa la Mbacke Balla yàgg fi loolu tëddee jërëjëf Mbacke sama xarit la ne say altaar sama mag sama xarit samp suñu ndënd ut réew mi am coalition bu ñu lal nag tuddee ko jàmmi réew mi ndax pour ñun kenn ci réew mi waruñu laaj leneen lu dul jàmm ndax Cheikhul Khadim ndono gi mu bàyyil mag ñi fi jàmm la bi mu dellusee ci exil bi su ko neexoon wax ne tubaab bi fitnaal na ma su boobaa tubaab tubaab dootul am jàmm ci réew mi du démb du tey du ëllëg waaye dafa ne jéggal naa ñëpp jële ko ci soppeem ba nga xamante ne seen diggante du ñaar benn la muy yonent bu tedd ba sallallahu alayhi wa wax naa ko ca benn taalif sax ba ñu ma jàppee ci kaso bi ma wax ko ne sa del si màkk fay na naqar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale li la tax ñu sopp la donc ñun réew mi ñu ne kenn du ñu fi indi leneen lu dul jàmm gi ñu mag ñi bàyyil te su leen neexoon doxe neneen Seydi Hadji Malick mbokkam mu baax ma jàmm la lanu bàyyil cheikh al ak i njabootam ak i waajuram jàmm lañu ñu bàyyeel jàngu bi nga xamante ne am nañu jàmm ci réew mi ginnaaw bañ leen ko joxee ndax su neexoon coow mën naa am suñ diggante saa su ne mais lal nañu jàmm suñu digganteek ñoom ak demlante bu sell bu am suñu digganteek ñoom jàmm moo ko waral jàmm jooju sëriñ bi kenn waruñu ko xañ dama wax benn nit ma ne ko ñun suñuy tudd ci ja ci ci dal la ñuy tuddee suñuy julli ci dal lañuy ñuy jullee suñuy jullee suñu ay néew ci dal lañu leen di jullee suñu leen di denc ci biir bàmmeel ci dal lañu leen di dencee waa léegi suñ diggante yeneen yi nga xamante ni du yooyu ma lim kenn du ko def tamit lu dul ci dal kooku dal googu nga xam ne mooy jàmm moom rek la ñu nar a continuer doxal suñu dund dina jaaxal ñu bëri mooy nous allons vers l'acte 4 de la décentralisation pour une communalisation intégrale beneen bi mooy suñu supprimer la mairie de Dakar batiment ba mu ne fa la ñu bëgg samp la banque des femmes sëriñ bi jot na jot na xelu tubaab bi ñu soreel ko suñu yëf te jublu ci jàngale mag ñi foofu la ñu toll ma wax ne sëriñ bi tubaab boo xamante ne su amee naxar day toji ay galaas ak suñu mag ñi ku ci amoon lu la metti nga jël lépp sante ko suñu borom ban yoon moo gën ci yoon yi waaw maa ngi yemale foofu wax ji sëriñ bi alxaqu min rabbikum faman shaa fal wa man shaa fal yakfur wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. moo kon nag weer woowu nga ñëw ci waaye nag ni nga ko waxee sànq alhamdulilah rabbil alamin ñu am ci tawféex nag mooy Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne moom dafa feeñ ci weer bi waaye nag ne sëriñ bi defoon yonent bi sallallahu alayhi wa rek mu def ko mu def ko sëriñ bi jiyee seey ci moom rek amul geneen soxla amul geneen bëgg dem na ba ne mënatuma bëgg leneen ngir bëgg sëriñ Tuubaa waaw la lahoo daxra xubbi lahoo daxra yoxo nii nii an xubbi si waaxu man dara mënatuta saf ci man dara man amatul ci man dudut bëgg sëriñ Tuubaa te sëriñ bi loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man damaa seey ci yonent bi mënatumaa bëgg leneen kon sa bi am na solo teraanga ji nga indi tam lu am solo la lu ñu lu lu ñu lu ñu fonk la lu ñu gis la lu ñu jëfandikoo la incha allah taala te danañ ko leeral a Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax kat fii ñor na ko ñor goo xam ne dara du fi xew lu moo ko toppal bopp programme pédagogique bi biñ koy tëral moo ko doon toppal bopp lu ñu bind dañ koy indi mu jàngal ko boppam wax ca wax ca la bëgg waxaat lim xalaataat ñu def ko ci kanam lu mu ca war a soppi ñu soppi ko léeg-léeg mu xool dara ba mu yàgg sax mu ne dina nangam ak nangam ñu defaat ko ci nga xam ne comme moom moom mën na ma wax ne moo ko pilote moo ko doon piloté ba ñëw wax loolu waaw lépp te xam ko loolu nag kon lii lu ci moom lay doon lu rëy ci moom lay doon kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di la xamal ne nag ci barabu ñaanukaay nga ñëw ci weeru ñaanukaay nga ñëw ci ku yaakaar du tase fi moom la ndax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sunu borom da ko nangul te borom bi subhaanahu wa taala yërmandeem ak màggaayam ëppante naag mu nangul ab jaamam di ko gàntulati te nangul na Cheikhul Khadim te Cheikh Modou Fadel daana wax ne ku fi ku jóge fa mu nekk romb fépp ba ñëw ci barab bii fekk fi borom baraag bi yitte jum fi indi ak nu mu mën a toll nag am yaakaar gëm ne borom bi subhanahu wa dana ko fekk ci barke Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi lay sant di la gërëm di feddali suñu kóllëre ak yow di rafetlu jëf ji di ñaanal mboolem ñi nga xam ne njaboot gi ànd nga ak ñoom ci turu ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha di la yëgal itam ubbite gi nga xam ne daf koy ubbi suba barab bi wax ne nag ñëpp la ko yëgal ndax moo jabooti ñëpp moo jabooti Sénégal yëpp ñëpp am wàccuwaay ci moom mooy koo xam ne amul koo xam ne dafa am li ñuy tuddee xejj ak seen ndax toogaayu cheikhul xadim la tooge mhm. cheikhul xadim moo tooge woon toogaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sëriñ bi buy ñaan day ñaanal bindeef yi irham jamii al wara yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadil irham jamii al yaa hadiyan rada kon ñu ngi lay sant di la gërëm di feddaliwaat suñu kollëre di la yóbbante suñu nuyoo ak feddali suñu cofeel ci waajur wu tedd ñaan suñu borom bàyyi ko fi te may ko wér dina ñaanal délégation bi nga àndal yëpp suñu borom kàttanal leen te dëgëral leen te kàddu yi tànk yi ngeen jéggi ba ñëw Touba ba ñëw ba ci barab bi yëpp sunu borom def ko yiw sunu borom def ko yërmande def ko tawféex def ko jàpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu suma geesoo yam si seex ummi daf may niroog maam fallilo ji fallo la ilaha fallilo yaram la ilaha illallah balam nindi suma geesoo yam si seex ummi daf may niroog maam fallilo ji fallo la ilaha fallilo yaram ak wax nag dafa jafe ci adduna bi ne ndax boo ne dama ne yeew nga sa bopp waaye li koy yewi nag yaa koy wax man sama xarit nga jàpp naa la te yàlla taxit nag du tey lum doon dañuy dab maag yow rek waaye fekk nanu nu nekk ci lañ war a nekk bu yàgg ñaan nag moom la ñam duñ ne kenn dañ la may dara waaye sañ nañoo ñaan ci ki nu am muy sëñ bi ku fi ñëw daal yaakaar la fi indi yàlla bu yaakaar gi tas ñu ngi nuyu directeur di nuyu kii nga xam ne mooy euh, yor sa saay si ak ñi nga àndal ñëpp sama xol sedd na guyu la ma la waxoon rek nit ki amul lu boppam te man li ma may sa bopp du tey nga ma ko may am riir nag bu jógee adduna jóg wax ji bari kenn ku ne da nga wax dara waaye nag du tee ka gore woon di gore ba ba léegi kay ñàkk a gore di de gore di ba adduna tukki rek waaye noon nag ba feeg adduna tukki dañuy gore jàmmo yàlla la xam sëñ Tuubaa la ñu am sëñ Fallu sunu sëriñ waaye sama xarit la walaay walaay waaw li ci des nag des koy desu ko waxtaane fi nga jaar fépp samay rakk la ñu ñu ñu am ñu am ñu ñu ñu ñu mata ñaanal nag bu dee Cheikh Bass dama koy faral de wax ne ko liñ la jox nga yore ko ak ñi ak ñi la séq ci adduna bi kuñ séq te drapeau rek jàmbar nga di ko wax si Ahmadou Badiou mii ñuy ay xale yàlla jox leen baat ñun ñaan lañ séq ñoom moo tax duñ ci jóg waaye nag boo demee ci béréb bi ñaan de la ñaanaleel ndax si lii yàlla jox leen mu lewet ci ñoom te te woyof fa nga jógee moog fiyee yam ba ma woon ci Ahmadou Badi yu ma fekk la fa sëñ Lamine di wax dëgg la ba ma woon ko Cheikh Mamadou Bachir ma fekk la fa maa leen mag fuuf waaye fii li fi ne dala da koo mayewut lu dul pas-pas te pas-pas bi ki ñu koy fasal ak ki nga xam ne moom lañ ci yaakaar sëñ Tuubaa la sa yaakaar ji yàlla ba mu tas waaye na fit bi dëggal rek kon na gaañi yéen tam na ngeen xam ne ku ànd ak nit ki njëriñul adduna jëru ko yaa def nangama ko jar xam nga bu yàgg ni ñu dañoo yaakaaroon ne tey ku tudd sëñ Fallu da nga tudd jumaa bu yàlla ne woon mën naa bañ a am Cheikh Mamadou Moussa des na ko tudd ku leen des na ko tudd Cheikh Abdoulaye kon fexeel ba li nga ne rek amu fit ta ci li ci des nag man loo ma ca woo rek naa la wuyu keneen noonu keneen noonu keneen noonu waaye nag am na du ñàkk ñoo xam ne xarit lañu yow nag sama xarit nga waaw loolu yàlla dogal waaw loolu yàlla dogal maa ngi sant ñëpp rek tey gërëm ñëpp rek sama xol sedd na guy sama xol sedd na jërëjëf Mbacke ah, dafa mel ni day yóbbaale na ma waaw waaw walay walay walay walay ndeysaan walay xarit gi nga wax nag loo bëgg rek fii la ëpp ah waaw man maa gën a bëgg nag ah, ah sëñ bi dëgg la kat ah, ah. Abdourahmane lii mooy dëgg kat xam naa ne bëgg nga ma lool mais fii la ëppee nag. Ah. waaw fii la ëppee. Ah, <laughs> maa ngi lay sant ci dalal bi. waaw di la ci sant sant bu wér. waaw di la di la di la remercier waat parce que jamono yee passé Moustapha bi ñuy mayee sama sama doom bi te ñu bàyyile ma ko. waaw Malick waaw bi ñuy mayee doom ji te ñu bàyyile ma. Euh, moom bi mu ñëwee maanaam daa daa taaral lépp rafetal lépp. waaw xumbaay ba waroon am mu soppi ko bi timis jotee ne ma nañ julli ji ñu julli ba pare mu ne ma nañ ñibbi ñu dugaat ci oto daa <laughs> daal di daal bàyyi fi xumbaay bi yëpp donc sant sant nañu la bu wér léegi rek laa koy ma ne waa sëriñ bi fan nga jëm ak sañse bi mu ne yaa tax <laughs> waaw sant naa la yal na yal na nga yàgg ci ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, suma geesoo jam si seex ummi daf may niroog maam fallilo ji fallo laa ilaaha fallilo yaram laa ilaaha illa laa balam nin